maanaam jiite ak àtteeb koy jiite ak àtteeb kañuy jiite nee na bu fekkee ne fa tafe ak lim lañ bu mat iliman kenn ku ci ne kon kenn ku ci jiite rek mu baax waaye nag ki ci gën di nag bañ caa dégg sëq say boon jiital ko du tee nag kenn ku jiite mu baax iliman moom neen dañuy sartu muy góor te bañ nekk jigéen jigéen moom dañuy jàpp ne du jiite du jiite góor du jiite sax jigéen ne moom jooju wax daal lañ gën a dëgëral dañoo taamu bu sa ilimaan de yàlla di wax ci suuf ngay wax ci suuf yow itam ba sam xel bañ nekk ci leneen waaye nag bu sa ilimaan de biral moom ci yoon maal dañuy sit ngay jàng moo xam na nga yelu rawante ne ngay jéem biral di yëkkati bu sa ilimaan de biral moom doonte déggoo ko moo xam na ngaa sori moo xam kàddoom daa jógut lay sunna mooy nga ne pat déglu am njaanam ndax dañuy jàpp ne moom bu jàngee rek jàngal na la ñu ne boo dikkee fekk ilimaan raw la kon na ngay seet ba xam boo sax si am lu matub rakk rek xamal ne kon am nga julli mbooloo ga nga xam ne kon lu wax ne julli mbooloo ba ko julli kenn am nga tuyaaba jooja doo ko sañ a baam wàcc beneen mbooloo su ko defee nee na bu fekkee rawoon na la nag bu ilimaan sëmbalee la mu rawe woon da ngay taxaw temm ci fay ko rakk bu ne lam ci jàngoon bu dee faa sabu saar moom nga cay jàng bu ko biralee nga biral ko bu fekkee dafa jàng ab rakk faatiha kese boo ko dee fay faatiha kese nga ciy fay su biralee nga biral bu yeloo nga yeloo ci wàllu taxawaay bi ak toogaay bi nag moom doo seet ba xam fii ilimaan toogoon na fi wala fii toogu fi woon ngay seet rek foo xam ne sa ñaar la rek da nga toog foofa foo xam ne sa ñaareel nag doonte ilimaan toogoon na fa yow bul fa toog mën nga koo misaale timis rek buñ la ci rawe woon ñaari rakk nga fekk rek bu mujj ba kon xam nga ba jógee ba taxaw gannaaw bu ilimaan sëlmalee rakk ba nga njëkk a taxaw da nga jàng Fatiha ak saar te biral ko ndax loolu moo nekkoon bu njëkkub ilimaan lam jàngan moom ngay jàng kon Fatiha ak saar te biral ko waaye bu rakk boobu jeexee da ngay toog foofu taaya te ilimaan toogu foofu ndax benn la woon te moom waaye daa sopp ko yow ñaar ndax da ngaa fekk benn bu mujj kon boo ci tegaatee benn rek ñaar la ci yow nga daa toog foofu taaya sa taaya digg boo jógaatee ba taxaw ci sa taaya jooju ci am ñetteel nga taxaw waaye da nga ciy jàng Fatiha ak saar te biral ko ndax moo doonoon ñaareelu ilimaan ba mu rawee woon yow na la sopp ko sam ñetteel ci ci ne ci ne sa julli tëdd rek waaye ñaareel la woon ci ilimaan neen bu fekkee da ngaa julli woon yow dong gannaaw ba nga gis mbooloo mu julli kon na nga baamu ci mbooloo ma ci kaw sopp rek ndax nga am nga leelu mbooloo dañu wax ne julli mbooloo gën nga julli kenn ñaar fukki tegar juróom ñaar benn assis ba ne ñaar fukki xaaju juróom kon nag boo julli yow dong gannaaw ba nga gis mbooloo ñu bëgg nga baamu julli ga ndax nga am nga leelal mbooloo am na yaar yoo xam ne moom doo ko baamu ngir ngëneel mooy timis timis moom mooy benn ba boo ko séddul itam baax yow dong itam du tax nga baamu ko ci mbooloo ak dee boo xasee wetar dee bu fekkee wetaragoo mën nga koo baam waaye boo xasee wetar moom doo ko baamu ngir ngëneel nee na julli mbooloo go boo xasee am benn rakk rek dëgg la sax nga fekke woon lépp moo ëpp tuyaabu waaye boo xasee fekkee benn rakk demel ne jot nga julli mbooloo ga ba tax na doo mën a baamuwaat nag léegi ngir ne fekkee ma ca lépp léppi julli ga déedéet nee na bu fekkee ràkk mujj ba ci nga ñëwoon te fekkee woo jàpp ci woon yi xam ne kon amoo lu matub ràkk sax ngaa fekk lu mel taaya su ciota yooyu kon boo gisaatee mbooloo muy julli mën nga caa baamu ndax nga am nga neer bu fekkee ne ilimaan moo fi nekk ak kenn ku góor ku julli ànd ak moom kon kookee di góor di ànd ak ilimaan day taxaw ci ndeyjooru ilimaan te bañ a langa moom dëgg-dëgg xaw koo féeti gannaaw tuuti day dem ba xaw a langa moom te bañ a langa moom dëgg-dëgg ca ndeyjoor lay féete itam bu fekkee ne ñaari góor dafay nekk ak ilimaan ak jenn jigéen kon ilimaan day taxaw ci kanam ilimaan day taxaw ci kanam ñaari góor ña rang ci gannaawam ilim jigéen ja jigéen ja taxawaat ca gannaaw ñaari góor ña kon ilimaan la fi nekk ak ñaari góor ak jenn jigéen na ilimaan taxaw ci kanam ñaari góor ña rang ci gannaawam jigéen ja taxaw ci gannaaw ñaari góor ña li mu ci wax ni moom mooy genn góor a fi nekk ak ilimaan ak jenn jigéen da nga yosoon moom ilimaan dafay nekkoon ak ñaari góor ak genn jigéen fii nga toll nag moom genn góor a fi nekk muy ilimaan ak genn góor muy maamum ak genn jigéen ba tey kon su boobaa genn góor ga fa nekk day taxaw ci ndeyjooru ilimaan te bañ a langa moom dëgg-dëgg xaw a dem ba tolloog moom tuuti taxaw ko des gannaaw jigéen ji nag taxaw fu seen gannaaw ñoom ñaar maanaam taxaw fu gannaaw ilimaan ak genn góor googee ku julli ànd sa soxna itam du tax sa soxna làng ak yow day taxaw fi sa gannaaw rek nee na bu fekkee ne ilimaan dafay nekk ak genn góor goo xam ne mag la ak benn xale muy xale bu góor kon bu fekkee xale bu góor ba yeewu na ci wàllu jaamu yàlla ba du julli ba yàgg mu dem di fooye mbaa dara kon ilimaan day taxaw ci kanam góor gi nekk mag ak xale bi daal di rang ci gannaawam bu fekkee nag xale bi ay mbiram wóorut amagu moom xel ci wàllu jaamu yàlla kon nañ bàyyi góor gu màgg mu taxaw ca ndeyjooru ilimaan ñu bàyyi xale ba fu ko neex rek taxaw ilimaan yi daati mooy ilimaan joo xam ne mbooloo jullit ñoo ko doyloo fal ko ne ko deenu jiite mbaa ka tabax jàkka ja moo ko wax ne ko deema jiite jàkka ji kon jàppal ne imaam ratib moom bu julli moom dong itam teew koo taxaw taxawaay mbooloo nga bokk dañ tam wute woon ci bu la kenn képp jiite yéen ñaar ngeen ànd ndax ñaar ñooy mat na mbooloo wala matul mbooloom déet waaye jàppal ne bu dee imaam ratib moom natt luñu ne dal na nekk mbooloo te mel moom dong itam bu jullee ci biir bu mu daan jullee ci waxtu war a jullee itam demel ne mbooloo julli na fa nga xam ne gannaaw du mbooloo mu ñëwat su mat ñaar mbaalu koopit dañu kenn kenn mbaa jigéen ji biti waaye ñenn moom donc bu fa jullee day mel ne mbooloo julli na fa kon jàppal ne ilimaan bi raatib moom bu jullee moom donc itam yow koo taxaw taxawaayu mbooloo ñenn yëpp jàkk joo xam ne am na ilimaan bi raatib bu ilimaan bi raatib ba fa siy jiite mbooloo ba àggal ñaar ñëwati mbaaloo ëpp ñaar dañuy génn ci biti def mbooloo te loolaa gën mbaa boobu nga jullee jàkk ja na kenn ku ne ber julli boppam ndax dañuy bañ ilimaan ji julli ak mbooloo ba noppi ñuy parparloo ke mel mbooloo ñëwati ci waa dëkk ba am ku leen jiite fa ilimaan doon jiite ci jenn jàkka ji loolu day indi ab xaajalikoo ak bañanteeg sotanteeg xeebante am na ñu sax bu dee ñoo xam dëkkuñu fa dañ faa romb rek jàll mën nañ faa def mbooloo ci waxi ñooñu boo ko see julli julli boo xam ne baax na nga xam ne safaat wàcc na la doo ci mën a jiitaat keneen maanaam boo bëggee baax mu ngir ngëneel da ngay roy am ku la jiite waaye bul jiitu ndax yow yàqu naa fi li yéen yemoo mel ne bu fekkee da ngaa juleel yow dong bëgg am nga ne lu mbooloo tax ngay baamuwaat ngay bàyyi ka nga xam ne moom jullee gu doon benn yoon mu jiite te yow nga bañ a jiite waaye boo jiitee yow da nga baaxle waaye ñoom duñ baaxle sa ilimaan daal moom fekkee xas nga àndama lu matub rakka jamono bu ko war rek daal lay wax dañuy seet na ba xam bu fekkee xabul salaam la njëkk sëlmal la nga ànd koo moom ba dee baxal salaam te raw la nag moom dangay bàyyi ba fay la mu raw ba noppi nag ba sëlmal door a def baxal salaam ba waaye doonte fekki woon juumte la sax waaye fekk nga jullit lootu bàkk rek moom njuumte bu ko war rek war la yow sa bopp itam boo juumee loo xam ne dara yow dong ñu digal la ci sujjóot ba tey gàddul na la ko du aajoo nga di ko sujjóotal waaye nag gannaaw boo juumee bay fay nag moom boo juumee itam du ko gàddu la nga àndoo moom lay gàddu waaye du du gàddu la nga xam ne àndoo koog moom dangay njëkk a takk ne am na yaar yoo xam ne boo ko defandoo sa ilimaan mbaa nga njëkk koo def sa julli yàqu mooy tàmbali allahu akbar ak sëlmal asalaamaaleykum yooyu yaar moom boo ko defandoog moom mbaa nga njëkk koo def sa julli yàqu yées na nga xam ne farata la ni ki njëkk koo rukkoo mbaa njëkk koo sujjóot yi demee noonu nag araam na waaye dox julli yàqu nga tax mën naa la bu yëkkati sa bopp njëkk mu yëkkati bul def dara lu may gannaaw bu defee su ilimaan amee ñaar jóg jëm ci ñetteel daal yoo bëgg nga di ko taylu bañu jóg bañu def dara di ko seetaan rek su jiwoon nag ba taxaw jonn ba nga dégg allahu akbaram nga door a tàmbali sab jóg yooyu itam boo tàmbali sab jóg lu wax allahu akbar ngay bàyyi ba taxaw jong door a wax allahu akbar loolu sopp nañ ko boo ko defee noonu du ko tee baax waaye sopp nañ noonu maa li bokk tëg asalaamaaleykum ak tàmbali ba muy allahu akbar nga njëkko ko def wax nañ ne araam na nga defal ko moom itam sib nañ ko nga bàyyi ba mu def ba noppi nga gaaw fekk ko ca loolu ñu gën a taamu waa ko teel a wax léegi te aseegu ci woon maanaam boo juumee njuumte loo xam ne bu doon yow dong ñu digal la ci sujjóot boo ànd ak ilimaan ilimaan dana ko gàddu du aajo nga dégg sujjóotal mel ni nga ànd ak ilimaan te bàyyi wax allahu akbar ñaar mbaa ñett wala bu doon yow dong mu am sujjóot waaye boo ànd ak ilimaan ilimaan gàddu ko ci gàttal rek daa bëgg a wax ne ilimaan mën na laa gàddu lu bokkut ak farata farata moom boo ko bàyyee ilimaan mënu koo gàddu farata mu andi rek ni ki boo bàyyi ràkk bi lëm mbaa sujjóot mbaa furoo def kabar armal mbaa waxoo asalaamaaleykum mbaa yéene woo yooyu farata lañ ilimaan mënu koo gàddu ilimaan moom loo xam ne sujjóot jamono rek mën na koo defar loolu la mën a gàddu yeena ilimaan bu jiitee bu sëlmal taamuñ mu toogaat lu yàgg ca fa mu toogoon di jiite xanaa rek su sëlmalee daal ba ne allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakata yaa dal jalaali wal ikraam dañoo bëgg mu daal wëlbatiku rek bañ a toog na mu toogee woon rek xanaa wëlbatiku jublu ndeyjoor bu ko mënee moo ban waaw dañoo bëgg ilimaan bu sëlmalee boo wax loolu ñu wax léegi mooy bëtigu jublu wetu ndey jooram loolaa ci gën bu dul itam na soppi ab jotaayam bu nam tooge woon rek bu mu tooge noonu wee xam ne danañ jullee ci bérébu boppam ni ku toon ci jàkk mbaaf ko mbooloo di fekk kon mën naa sëlmal ba noppi nag du tee mu toog na mu toogee woon rek noona ba tey nee nañu sopp ñu gannaaw bu sëlmalee moom ilimaan mu tàllal ay loxoom ñam doon jiite itam tàllal seen loxoom moom muy ñaan loolu taamuwuñ ko dañoo bëgg rek kenn ku ne ñaan ñaanu boppam su fekkee daana ko def nag ba noppi bëgg koo bàyyi te xamal mbooloo mu ne leen ñaan gi kat far naa ko dugal ci biir taaya ji mooy su ma dee taaya bala maa sëlmal rek foofu laay ñaane kon ñaan dama daan def su ma masaa sëlmal ba noppi kon xam leen ne def naa ko ba noppi